rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziyaare di jiital ci nuyoo bi kilifa yi nga xam ñoo toog nii ci suñu ginnaaw ginnaaw bu nuyoo sëriñ Saliou Ndiaye eh, mi nga xamante ne mooy jiital kilifa yi ñu ngi nuyu bu baax sëñ Modou Diouf le président ak eh, ñi fi nekk ñëpp rek bàyyiwuñ kenn ñu ngi leen ziyaar lu bare bare xam naa di yëkkati ay kàddu rek te xam naa bañ koo guddal lool. Euh, ginnaaw bi nga xamante ni sëñ euh, Modou Mbengue euh, dikk na ci li nga xamante ni mooy finance bi ñun côté bi nga xamante ni moom la ñu féete nag wax dëgg yàlla liggéey bi yomb na lool ndax li ko yombal mooy que ni membre yi nga xamante ni ñoo nekk ci groupe bi à chaque fois rek Serigne sëy mi ngi indi ay leeral ci biir groupe bi yoo xamante ni si nii moo jëm ci wàllu compte bi kon loolu daf ñuy dimbali bu baax a baax ba ñu ñi nga xamante ni ñoo yore wàllu saytu compte bi li nga xamante ni lu ciy génn la wala lu ciy dugg loolu yomb lool ci ñun ah, ginnaaw bi ñu nekkee ba léegi nag euh, depuis 2019 ba léegi wax dëgg yàlla euh, yàlla def na gisaguñ ci lenn loo xamante si ni lu ñu mën a lu ñu mën a wax la te mbooloo mi nga xamante ni moom lañ ko seqal aussi gisuñu kenn koo xamante ni mas nañ cee woo euh, wax ci loo xamante ni gis na ci lu jaarul yoon ba tax na loolu dafa yombal liggéey bi ñuy sant loolu nag bu amee dañ ciy sant bu baax Serigne Seye Serigne Seye mi nga xamante ni saa su nekk moom moom moo koy sonne moom moom fuñ ci fuñ ci tool rek moom la ñuy dégganteel lépp loo xamante ne am nañ ci lu ñu xaw a jaaxal bu ñu gisee loo xamante ni si yaakaar naa ne lii jaarul yoon moom la ñuy woo ko waxtaan ci ak moom ndax des fois du ñàkk ñun ñi nga xamante ne ñu ah, am nañ benn peut-être benn bonifié boo xam def nañ ko te xëy na mu rëcc ñu wal dara dañ koy dégganteeg moom mu leeral nañu loolu naka la demee euh, bu ko defee mu leer suñu bopp lépp loo xamante ni si gis nañ ko ci te jàpp nañ ni xëy na. loo lu jaar yoon la mën nañ cee déggan tamit ak yi nga xam ne ñoo leen ñoo leen seqal liggéey bi ku ci mel ni sëriñ Aliou Badiane ak euh, sëriñ euh, ab Abdoulaye Gaye nga xam ne tey moom yàlla dogal na teewagul ah ñu ngi jaajëfal bu baax daal maanaam waa waa finance bi nga xamante ñoom ñoo liggéey bi ñu leen ci sant bu baax leen ci gërëm parce que ñoom bu liggéey bi jaaree yoon ñoom la ñun de nekkuñu loolu di ci di di contrôler ci suuf rek. waaye nag bu fekkee na ngay contrôlé te ke kay gis nga ni gisoo leen lu gis naa benn benn anomalie bu ci nekk mënoo mënoo mënoo amoo leen looy wax daal maanaam liggéey bi daal lu man li ñu wax mooy que ni euh, lépp jaar na yoon fi bañ commencé ba léegi gisuñu leen loo xamante wax dëgg yàlla mën nañ ko wax lu jaaru yoon xëy na peut-être ay léegi mu am ay yoon yoo xam ne xay na am na lu ñu def loolu mu leen rëcc waaye leen bu leen woo ci suuf rek wax leen ko dañ koy daal di rectifier ci saas nekk sax euh, du nekk sax lu ñu lu ñu woon mais erreur la moom ku nekk daal mën na leen a arrivé des fois waaye bu bu loolu amul moom wax dëgg yàlla ñu ngi leen ci ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci liggéey bi ah, gis nañu daal ñu ne ñu neex a àndal lañu ñoom waa finance ci liggéey bi ndax ah, tout le temps dañuy collaborer ak yow bu ñu waree def euh, peut-être benn extrait de compte dañ lay woo xamal la bu fekkente ne ñoom ñu ko war def disponible ñu woo la nga jox leen ko extrait de compte bi. balaa loolu aussi à chaque chaque fin de mois aussi dañuy def start compte dugal ko ci suñu benn groupe bu ndaw boo xam ne ci lañ seq ñun ñett ñi nekk ci liggéey bi ñu contrôler kenn ku nekk xool boo xam am na loo gis bonifié bu génn wala waroon a génn wala entrée boo xam daa waroon dugg te te te duggul parce que mos na fi am benn benn benn yoon boo xamante gis nañ fi benn sortie boo xamante ni bu demoon la ci benn membre 1500 euros après 1500 euros yi dafa départ dugg ci mais loolu bu ñu ko contrôlé gis ko aussi dañ koo xamal euh, waa finance waa finance wax ko président fekk jàppoon na ni xaalis bi génn na fekk xaalis bi génn ñu daal di koy defaat bonifié ko yu mel noonu daal des fois mas na ci am à part ça nag amul lenn loo xamante ne wax dëgg yàlla gis nañ ko ci luñ mën a luñ mën a wax daanaka kàddu yi jërul di guddal comme lu ñu dénk gis nañ ne jaar na yoon te amul lenn loo si mën nañ ko cee mën nañ ko cee euh, wax naka sul lool naka sul noonu daanaka ne jërul guddal kàddu yi kon dañuy delloo kàddu bi rek waa secrétaire général moom di ko jaajëfal bu baax ci liggéey bi ak président aussi ñu ngi koy jaajëfal gis nañ baax ni muy sonne ci liggéey bi ak waa ñu yore wàllu diine bi yëpp ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen jëf